bugan Gueye Dany njital gëm sa bopp niki tey jii nag lañu ko don atté fofé ci Tamba ki nga xam nak nag moom procureur bi jël na ab dogal euh, placé sous mandat dépôt euh, ki nga xam nak nag moom moo di Bougane di njital gëm sa bopp niki tey jii nag lañu ko don atté fofé nga xam nak nag moom moo di Tamba waral nak jëmunu ji euh, dal dinañu koy denc delo ko way itam fas ko atté wat ci 30 octobre bi nga xam nak mom lañu dal di deutmal ki nga xam nak nag moom moo di Bougane Euh, ñu fas yéene ko àtte li nga xam ne nag moom moo di flagrant délit ci 30 octobre bi nga xam ne nag moom la ñu daal di dëtmal ginnaaw euh, bi nga xamee ne nag euh, daal dinañu koy denc ci jamono ba nga xam ne nag mooy forcé ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di gendarmerie bëgg a dugg foofee nga xam ne nag moom moo di ca Bakel loolee waraloon nag li nga xam ne nag moom moo di arrestation bi ñu waxaat ci leen ci la neen Ahmed Suzanne Camara bokk ci ñi nga xam ne nag ñoom la ñu njëkk jàpp moom nag yëkkati woon ay kàddu kaddu yu doy war te woon ko ci nga xamne mo nak moy ki nga xamne mo modi premier ministre bu senegal jamono ji nak may nañu ko li nga xamne nak mo modi liberté provisoire kon nak desaat batay ci bougan gay dani niki tay ji lañ ko don atté way itam euh, procureur bi jël dogal placé ko sous mandat de dépôt ba tax na le 30 octobre bi nga xamne nak mom lañu la ñu daal di kon nak man nañu wax ne bu campagne bi di tambali ci biir prison bi rek la koy fet ndax la koy fekk ndax campagne yi mi ngi wara tambali ci li nga xamne nak mom moo di 27 octobre bi nga xam ne nag moom la ñu daal di dëtmal